daañu waxtaanee ñetti fan yu nga xamante 72 heures. Mhm. yu nga xam ne waa Yewwi Askan Wi bëgg nañu amal ay manifestation fii ci biir Ndakaaru mhm. ak ci biir réew mi yëpp képp ko xam ne rek euh, partisan wu Yewwi Askan Wi la ñu ngi lay woo ci boobu leen ndaje benn bi nag dañu jàpp ñaari lieu muy fii ci xaar terrain xaar yàlla bi jàkkaarloog wal fajiri beneen bi ñu ngi koy bëgg amali fële ci parcelle ci terrain bu ñuy wax ak pes mhm. ñeneen nag du ñàkk ñaar yooyu dinañ leen ci autoriser benn ñoom nag waa Yewwi Askan Wi euh, précisément ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko moom xam na ni avec ou sans autorisation ñoom bëgg nañu amal boobu leen ndaje parce que gis nañ ñi nga xamante ne ni mooy xew ci réew mi looloo waral ñu bëgg a euh, créer boobu les manifestations génnoon na nag dem fële ca Colobane ànd ceeg Abdoulaye Diallo ak euh, Kandji ñu dem xooli ñi nga xamante ne ni ñoo di waa mbedd moomule li ñu wax ñu dellusiwaat ci plateau. Il y aura pas Mais si on les force et les contraindre à se manifester dans un plan vraiment virulent, ce sera à cause d'eux. C'est à eux maintenant de, réfléchir parce que ça dépasse actuellement un contexte politique. mais muus ci boppam boo ko dàqee mu dem ba tafu ci miir bi boo yegsee mu jaxase la. nous sommes en démocratie normalement boo bëggee marche da nga war a marche. mais bu ñu la nee waroo marche jox ñu la autorisation mais bul marche fexe lu am autorisation marche état bi mënul dëkk ci bañ marche yow dëkk ci di marche. warul am deux poids deux mesures war a aaye ñii nangul ñee war a nangul ñee aaye ñii l'État ne peut pas dëkk ci bañ a may nekk c'est pas possible. ah li war a man jàmm da koy xew quoi. man autorisation génn ni. autorisation dina man ñi war a jaar nañ fi war tamit lox état war ko man mënu du indi du man dafa gis ni. carrément aw na fi mu jaar. léppam man na pour mu demande autorisation. dinaa dem ak dina du dem moom loolu du ci wax ndax am ci loo xam ne kenn du ko wax damay xeexe daan maa ngi xeexe moom pour yow boo bëggee bëggoo xeex réew mu nga xam ni maanaam ni muy doxee baaxul euh, boo nekkee nga xam ni da ngaa jiite réew da ngay yemale ñëpp da ngay yemale ñëpp parce que dooni man bu ma xewlee rek la ñuy def bu keneen xewlee ñoom duñ def parce que loolu boo ko defee rek maanaam yow yaa ngi commencé indi ay jafe-jafe si réew mi waaw non ñun jàmm lañ ciy ñaan mais moom ala kulli alin dañ koy def suba waaw demuñu pour yàq demuñu pour taal ayca mi ngi noonu en tout cas ñu ngi koy nuyu moom Ndiol As lay wuyoo muy Ndiol bu Ousmane sonk lañ ko dippee euh, su koy gis nga li nga xamante ne nii moom la waa Colobane wax ci mbir yi waaye nag euh, dégg nañ keneen koo xamante ne nii muy Seydi Gassama nee na mënuñu nekk ci réew moo xamante ne nii képp koo xam ne rek bëgg nga manifester wu wane li nga xamante ne nii te Sénégal ñëpp xam nañ ni am nañu ay droit yu nga xamante ne nii permettre nañu yenn ci askan wi su ñu amee dara lu leen métti ñu génn manifester wu nee Euh, gouvernement bi recruté na ci diggante ci 2022 lu toll ci 6000 gendarmes ak euh, li nga xamante ne ni moo di ay policier nee nañ nañu jéem a fexe encadré ñi nga xamante ne ni ñoo di way manifester yi ñu def mbiri si jàmm parce que bu ñu seetloo euh, yenn mbir yi dañuy gis ne rek à chaque fois ñoom dañuy jéem a def yoo xamante ne ni dafay aaye nit yi bañ a manifester wu ama mu nekk mbir yoo xamante ne ni demee ba léegi nii autorisation bi dégg déggaguñu ne accepté nañ ko peut wi on bi bien ba xam lu lu lu fu wànnent di mu jékki bëtam mais nag ñoom nee nañu même buñ leen autorisé wul sax dinañ amal li nga xamante ne nii moo di manifestation yi est-ce que jàppoo ni am na lu mu mën a jur euh, buñ leen ko euh, accepté lul. li jiitu ci manifestation mooy. Hmm. ñaan manifestation ñaan amu ci lool la suñu yoonu réew. wax mooy da ngay tàggoo yëglu. yëglu waa boo yëgloo yoon en def li ci war bu xoolee li ngay def mënut a yëngal réew mi wala mu xool ni. mënut indi benn gàllankoor mu encadré la bool ak takk der yi te ba Sénégal di Sénégal ba tey ji bépp manifestation boo xam ne autorisé nañ ko fi mu jul ci fitna maanaam ñu autorisé ji nga Kër masaar bi man dama ko dund maanaam Kër Massar bi yàlla dafa dogal ma dund ko mais la fa nekkoon ca mbooloo. Hmm. man mosuma ko gis ci manifestation politique Sénégal. dëgg la mais manifestation boobu moo jeex. Hmm. doo gis mbalit doo gis dara man dama doon ragal sax bu manifestation bu jeexee ay agression am ak lépp. mais bu Kër Massar bi mooy wane ni lépp loo autorisé mun na mujj ci jàmm ndax la fa nekkoon ca mbooloo te ba léegi dégguma ku ne dan maa sàcc. Mm-hmm. dégguma ku ne dan maa dóor dégguma ku ne kon koy autorisation mooy indi jàmm. Mm-hmm. di ko aye mooy jur fitna. Mm-hmm. kon ñu autorisé ko lu jaadu la bu dee danoo bëgg jàmm. sama matin dama liir les trois à Benno yi xaw ma APR. waaw wax nañ ne seen seen yooyu ñu naan Ousmane Sonko bëggul jàmm. voilà keroog bi manifestation bi di am Ousmane Sonko daa am lu wax lu leer. Mm. mooy defuñu ko pour coup d'état defuñu ko pour guerre civile. ñun dañoo bëgg jàmm ça veut dire que kooku mi ngi ci jàmm mais c'est li ko yoon may la laaj maanaam li yoon may président Macky Sall ak waa Benno ba nu saña génn daje fu leen neex yoon woowu dañ ko may ñëpp ci réew mi léegi nag dafa am benn way coon sec apartheid man dama ci bu mu ko dégloo dama naan Sénégal est-ce que delluwul ginnaaw te ñu yegguñu ko mm. mooy juddoo ci réew màggee ci réew amoo fa baat amoo fa yoon mm-hmm. muy jaanal way mu ne bu yàggee di nga jéngu di nga jéngu mm. Sénégal maanaam ñun bi ñuy dégg apartheid way way dañ doon wax ni loolu bën réew la est-ce que am na réew moo xam ne buñ xatal nañ fa nit lu toll noonu mais tey jii boo xoolee opposition amuñu baat amuñu yoon ci réew mi parce que yoon dafa jàng mm-hmm. léegi nag looloo indi seen jëngu gi léegi nag waa APR yu ne dañuy génn jàkkaarloo gars yi def contre manifestation ban ko jàppee ca Kër Massar gars yi pousse dem ca dimanche ba waa APR est-ce que mujj nañ manifester. ban ko jàppee ca Mbacké waa APR jàpp bis. est-ce que mën nañ génn ñoom kon ñoom seen génn yooyu dañ koy def pour ruubee pour ñu ne trouble à l'ordre public mais mun naa waat kitaabu ni bu yoon ak police ak takk der yi génnoon tee seen loxo na ñoom maandu nan waa bennoo yi taxaw fële waa yeew yi taxaw fii di nga gis ku bokk bennoo ku gàddu ay maraakisam du daaw amuñu mbooloo ñoom seen fit bi yépp lenn moo leen ko may mooy yoonu réew mi ñu jàpp ne dafa farag ñoom ak takk der yi loolu rek mooy problème mais bu dee mbooloo man gëm naa ni bennoo amatu ko kon nag tey jii am na nañu droit jàpp bis ñoom waa Benno yi waaye ngelawaay ñii bu ñu jàppee bis na leen ko bàyyee yoonu jàmm soriwul fitna ma ngay nelaw ku koy yee. yaa ngay yee fitna te fitna ay du yem ci bopp borom ñoom moomuñu réew mi man ñun politique mais ñu réew mi ba sañ na ñoom sañ nañ fee def lu leen neex wax fi lu leen neex te keneen sañu fee def keneen sañu fee wax. waaye mm. waaye loolu yàlla may ko Macky Sall fii ñu fi juddoo duñ ay tudd jéeri duñ ay mbadantaan ci réew mi la ñëpp bokk. nan leen wax dëgg na leen waa benn yi moom leen réew li bàyyi leen nit ñu manifester bu manifester bi jeexee ngeen jàpp yente seen bis mhm. yoonu jàmm soriwul Euh, euh, bu ñu seetlu ne à chaque fois Yewwi Askan Wi jàpp seen date yi nga xamante ni nii bëgg nañ ci amal euh, ay manifestation bu ñu xëyee gis ndaw APR yi ñoom itam ñëw ne dañuy jéem a indi benn tension boo xamante ne ni comme ni ko gars yi waxee ne ñoom itam du nangu ku créer ay trouble fii ci biir réew mi rawatina nag à chaque fois ñoom it dañuy jàpp bés boobu noonu même jour bi ak waa Yewwi Askan bi bu ñu seetloo après dañuy mujj annuler ñaari manifestation yooyu yëpp est-ce que jàppul ja amoo loo si beneen benn analyse boo si def bu bu bu wuteek yenn Sénégalais yi. waaw jërëjëf ma jigéen ci kàddu yu am solo yooyu. Hmm. xam nga dafa am ku ñuy benn journaliste bu ñu wax Samba Ndiaye. Hmm. Eh, dañoo nekkandoo woon euh, Sopi FM. Hmm. jamono bi Wade nekkee ci njeextalu mandaam di daanu dañu toog benn jour boobu sax mi ngi ci rajo ci rajo la ko doon waxee Sopi mu ni. fi mu xamee ne Abdoulaye day daanu mooy manifestation da daan gis politiciens yi rek seen i ñi nga xam ne politique moo leen mais nee na jour bi mu gisee manifestation am euh, nga gis euh, mécanicien bi solteneem dem maniser hmm. bi dem hmm. euh, kii tëj palaasam dem hmm. nee na ci la xam ne Abdoulaye day daanu parce que am na ñoo xam ne saa yu doon gisee ci ab manifestation rek mooy nguur googu jeex na mooy ñii moom dañoo doyal li am ci réew mi nag man li ma ci jaaxal mooy Omar nga koy junj léegi damay gis rassemblement bu nekk état bu Sénégal maanaam ñi fare ci nguur gi dañ koy def benn problème du am amul saa ay ay kii ak saa yu ñu def fu ñu bëgg a dem dem lu ñu bëgg a def def benn problème amu ci léegi ñu gis nag geneen wàll goo xam ni depuis que Kër Massar ba léegi Omar a ngi koy junj mm. saa suñ commencé ñu ruube ruube gi nag man nee naa leen sax waratu waratuñoo tudd ñuy ruube mais préfet yi laa war a waxal c'est-à-dire préfet yi laa bëgg laaj ndax bu sukkaa ñëwee ni dafa day laaj autorisation pour dugal def dara Omar ni sartu réew mi nee na sax waxul ngay ñëw di ñaan mais da ngay ñëw rek pour yëgle ko def bu ñu xoolee ndax barab bi amul problème ñu jox la ko waa léegi su kaa wax loolu ba pare ba nga xam ne kii moom pare na def na communication ba pare yow nga jógee fenn yow tamit da ngay def yemoo ci da ngay def de ndax mën nga koo defee ko defee laa koy defee ni riposté. loolu mooy duñ leen autorisé. parce que bu bu loolu ba am rek. mooy mooy parce que mën na indi trouble à l'ordre public waaw léegi am leneen lu ci nekk loo xam nag moom la borom mbaxanamu euh, kii mii di wax mooy. Mm. moom la Sadio di wax muy ñu koy def gëmuñu ko de seetlu leen ñi naan dañuy def contre carré bi yëpp duñ génn parce que dafa am geneen wàll gi euh, euh, man xawma leen sax xawma ko bokk ci ñoom mosuma gis euh, Pastef kenn wala ma assiste seen ay réunion mais nga xool booy yi jàppale Pastef li leen mbir mi jaral maanaam dañuy wax ni cotisé wu maanaam kenn joxuñu xaalis kenn neexal neexaluñu jën kenn joxuñu t-shirt waa boor bee nag jàppale saa ñu waxee manifestation contre ci beneen wàll gi ñi nga xaar ay enveloppe yu ñëw mm-hmm. pour ñu mën a def mm-hmm. maanaam jàppale président Macky Sall jaralu leen dara jaralu leen sax xoos kenn lu dul ne enveloppe dafa génn gis nga manifestation yi ñuy wax ni contre euh, mm. ay euh, riposte duñ génn fenn bu enveloppe génnul xam nañu ni nag nguur gi mi ngi toll ci jeex man sooy bi dama bokk ci ñi gëm ni nguur président Macky Sall jeex na teguma ko ci ay baatin teguma ko ci dara mais xam nga fu ma ko teg muy lépp loo xam ni dañ ko bañoon ci Ablaye Wade piiram dañ ko fee gis te gis gëm naa ne sénégalais yi tey lañ gën a yeewu su ma xamoon ne lii ngay waxtaane ma jox la benn vidéo boo xam ne président Macky Sall ci boppam moo doon wax ni Abdoulaye Wade bu insisté ci lii muy def dinaa taxawal gouvernement para parallèle la wax sax mm. beneen boo xam ne xaw ma kan moom ko envoyé mu ni damay taxawal gouvernement parallèle mm. fii ci biir dëkk bi contrecarré ko te su boobaa xam nañ day daanu mm. Sonko ndax mas na wax loolu non non non est-ce que mas na wax damay dem palais génne président Macky Sall léegi ñii fu ñu dem bërëb bi ba lu ñu faa jógee ba mu set duñ fa sàcc portable amul benn amul ful buy am di agressé amul dara mais ñooñu bàyyi leen ñu dem def seen manifestation mais lu mel ni su amee ñi la ñëw ruubee nga bàyyi leen après nga tuddee ko leen trouble à l'ordre public daal di koy gàcc ci ndoddam Baye Assane Mesere mooy wax ni ñu ngi rokkoos rek dossiers yi ko ci ko dañaan kaay yaa defoon trouble bi yaa defoon trouble bi te trouble bu ñu moom ñi demoon doon ruubee ñoo ko indi kon ma jàpp ne président Sall na delloo si xelam xam ne ñi dëkk fee ak ñi dëkk fii ku ci nekk yaa leen jiite mm. ñii dañoo tànn ànd ak moom ñii tànn ànd ñoo ñoom na leen bàyyi ñu manifester Euh, moo leen may doole fi mu doon nii le 14 bi ak le 15 bi bu ñuy aayee rek muy am doole am doole gi mooy après presse internationale bi dañ ciy jot kon na bàyyi ñëpp ñu ñu bëgg a def nañ def bu ko fi yàlla naree samp euh, ab gouvernement man waxuma moom nag mais keneen ki mu fi teg su ko yàlla naree samp Ousmane Sonko mënu ci dara mm-hmm. léegi nag yii muy def day gën a may doole Ousmane Sonko na bàyyi ñi bëgg a manifester ñu manifester wàññiwu ko dara. d'accord Alaaji est que nekkul ndaw APR yi di ñuy bëgg chaque jour rek bu waa parti bi euh, jàppee seen date ne dañuy manifester ñoom tamit ñu taxaw ne dañuy manifester est-ce que nekkul ne ñoom ñee dañu bëggul seeni mbir di dox moo tax ñuy indi parfois yenn. non dañuy liggéey amul leneen parce que fi toll nii Sonko lu Sonko bokk. Mm. nga ne du fi amee. loolu marchand kii bu mu la maanaam sa salaire day kii quoi maanaam dañuy loolu fi mu dolli waaye kenn du leen gis soo mi nga daal bu enveloppe bu yóbbu enveloppe duggee sax du leen gis ñoom enveloppe rek lañ bëgg ak encaisse fi mu toll danañu envahir tak TikTok beeg yooyu gars yi kii contre carré def leen kii ak yooyu yëpp pour loolu lépp na na koppar yi génn rek waaye bis bu koppar yi génnee doo leen teg bët xam nga nit ki day génn ci génn boppam mais mënoo di date ci datu jàmbur yow bu waa ji date wut doo date fa la ngay toog rek jàpp sa jàmbur bàyyi ba waa ji date rek nga ne dégg xam nga loolu bokkul sax ci fulla ak fayda kuy wujjee noonu sax da ngay soof même wujju wujju wujju jigéen jigéen joo xamante amul benn initiative bu waaj ji bu kii nee mbaxal la nga ne ma ne damay taal mbaxal mu ne tey maa ngi def finalement da ngay soof nit ñi yaa ngi dégg wallaay bu Ousmane Sonko fi mu toll bu ñu déggoon ni ngent léegi nga ngeen ñu ngent nañ ngentee dañuy ngénte bu ñu kiiwut àbb bébé ñëw taaj daan na bébé ngénte xam nga c'est euh, euh, li Omar wax nii xam nga dem na sax ba ci gën a reelu waaw bañ fi tuumaalee Ousmane kii <laughs> donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni bi mais li am solo euh, li li am solo mooy Euh, nañu nañu bu dee xam nga tey reponse politique mooy lan bu fekkente bi jàpp nga ni yow kii yaa ko gën a taxaw politiquement ñoom amal nañ seen manifestation ëllëg si biir wooteel sa beneen mais xam nga lu tax du leen kii gars yi dañoo woote Kër Massar ñoom ñu woote fële juboo wuñu kurpanjaay naaw yaa ngi dégg affaire yi doxut mm. comme di nga xam ne noonu la waroon a doxee parce que mm. dañu woote woon pour comparer mm-hmm. mbir mi doxut léegi nag ñu ne bu mu fi defati léegi loolu mooy problème bi léegi bu mu fi defati parce que xam nañ ni ak li ñuy débloqué ci moyen yëpp tamit te du ñu def le pois loolu moo tax léegi ñu am problème xam nga kële bi muy organiser fee boobu dafa organiser meeting boo xam ne Pastef la mm. ñu ne bu Mbàkke bi bu mu am parce que bu Mbàkke bi bu amoon mm. foofu ca ndóoyeen mm. musiba am mm-hmm. moo tax ñu xar ci seen tànk tubéy dal ne lii du fi amee waaw parce que boobu nañ ko gars yi waajee c'est extraordinaire mm-hmm. donc nañu wut seen date yi bopp te bàyyi datu jàmbur yi waaw biib dat du seen dat alaaji est-ce que est-ce que tamit bu ñu bu ñu autorisé wul affaire bi te ñeenee nañu ñeenee nañu ñoom ñoom ñoom ñu ñu autorisé koog alaaji ñu autorisé ko bàyyi leen waxu daat yi <laughs> baax na ñu autorisé ko ak ñu ñàkk ko autorisé yëpp euh, euh, euh, mbir mi mbir mi dinañ ko dinañ ko amal est-ce que loolu tamit bu ñu ko autorisé wul mënul indi beneen problème boo xamante ne ni suba du jur yàmm. waaw xam nga mm, loolu kay xam nga ko buñ ko autorisé wut kay xam nga ni euh, problème euh, risque yi kañ démarré na. non bu ñu ko autorisé wut risque yi démarré na. donc li leen war rek mooy bu dee ñoom réew mi soxal na leen xam nga nit danga koy nangul li ko borom bi may xam nga ñoom ne seen problème yëpp xam nga lan la. mooy nangu lu ñu Sonko li ko yàlla may. mais nañu reconnaître ni sunu borom may na ko lii. te gis nga nangu teel na nangu li yàlla may nit ki. loolu ci jaamu yàlla la bokk. te dafa am solo. mais yéex bee def parce que tamit préfet duñ la joxee duñ la jox duñ la jox ak autorisation nga toog peut-être. ba ba ba mu wees voilà mi ngi noonu xam loolu kooku doo ko jox temps bu nga xamante ne nii dina préparer. ay yooyu yëpp xam nga yooyu yëpp mooy li ñuy wax naan administration buy politique ak yooyu xam nga yooyu yëpp warata am war warata ki. Mm-hmm. parce que yow dañ ne dinañ la tontu ci ñaata. dinañ la tontu avant 72 ah, heures. ah boobu bëgg ni ah ba ba fi may toll nii di wax. defe naa déggaguñu déggaguñu ne waxaguñu kii lu muy enquête. Ah. mais suñu bàyyee ba minuit jot. fekk yow kooku suba la wax. parce que ñi préparé xam nga loolu mooy problème bi. Ah, ñi préparé ba préparé nañ seen préparé ba noppi. mais du yoon nag nga bàyyi. ba ba ba heure voilà comme que du yoon donc euh, nañu bàyyi. Mm. moo tax gis nga administration yooyu bu duggee ci politique rek. Mm. Euh, musiba la ci am réew. Mm-hmm. réew. kenn du ko yore noonu ku ci neen na def li mu war a def maanaam administration di def li ñu war a def politique yi di def li ñu war a def justice di def li mu war a def. Mhm. bu boobaa gis nga tey jii bu doon ñëpp jàpp nañ ni justice bi juste na ni muy doxee nii la wallaay problème du am. évidemment parce que tey bu fekkee ne justice yóbbu nañ fa nit it mu naan noonu ni kenn bu génn kenn du kenn du ko topp. Mhm. mais nit ñi bu ñu gisee nga téye justice utiliser ci contre Karim ñu gis ni Khalifa sàll même chose que bu ñu gisaatee luy mel noonu dañ naan lii du fi amee. Mhm. loolu mooy problème bi nga xam ne moo fi nekk. Mhm. parce que bu fekkoon ne kaa Khalifa amut ak kaa Karim Wade bu boobaa Sonko bu ñëwee askan wi ci boppam dañ koy seedaat. Mhm. parce que bu fekkee ne yole amut mais bu ñu gisee yenn yi am ñu gis ni kat ki nga xam ni kii day dem ay élection mooy tànn su kaa du bokk ma jigéen dana bokk. kii kii Omar du bokk kii dana bokk et cetera <laughs> bu boobaa loolu day indi ay jafe-jafe compliqué sama xarit la mm-hmm. dama ko laaj affaire manifestation yeeg yooyu noonu mu ni manifestation yi coow li koy indi yëpp mooy lii de mooy expliquer quoi mm-hmm. mun a l'interdit créer le désir mm-hmm. mun a loo tere rek mu ne loo tere mu neex. loo tere mu neex yow eh c'est vrai loo tere mu neex. ma ni ko nag pourquoi yéen ngeen mën a ñu or eh, lay recevoir loolu kay xam nga ci dara. Mm-hmm. loo tere mu neex gis nga da ngay gis benn waay bu topp ci seen nas ndaw. Ah. dem takk ko ci farataak sunna ñëkk fu ñukk di wëri ji leneen loo xam ne luñ ko tere la ah léeg mu topp ci koo xamante ni kii jabarama ko gën a kii met ah. ca lay topp parce que lee lañ ko tere lii dagan na bu ko defee ndaw si naa la li waree ngi ci kër gi la moo la lew ñëwal <laughs> fekk li ñu ko tere ngay tëjëx tëjëx xam nga boole ci ñàkk fayda koo xamante ni gii danga ko ci boole xam nga loolu mooy li nga xamante ni mooy la mm-hmm. gis nga dañoo nekkoon fii conservé di liggéey ci usine ton yi ñuy nekk di liggéey ñu tere ton bi bi ñu ko teree ton bi neex gi temps bi neex maanaam di dajji pot da ngay gis da ngay gis koo xam ne au lieu mu dajji pot bu yam mais 3 kilos lay ji lekk xaaj du xaaj sax du ko mën a lekk mais day neex mais gis nga buñ ko dagatalee boo yoree ton bi nii dara ci lu neex mais il suffit que tere dañ ko gaay rek affaire bi am xorom. li fi doon waxtaanee fii tey boo déggoon ñu ni léegi def nañ décret léegi dagal na leen dagal nañ leen yàmbaa ci dëkk bi. waaw kenn dootu ko jaay. Mm. ñi ko doon jaay dañuy daanu. waaw buñ ko dagal buñ ko yoonaloon ci réew mi rek yàmbaa day lam. Mm. mais léegi comme dañ koo tere. waaw gaay di muqi di nëbbatu. di dañ kumpa di ko dañ kumpa loo tere mu ne. lii ñuy tere lu ci ne il faut nga mos. ñam mm-hmm. waaw ku ko ñam ku ko ñam. Alaaji yow moom li ngay wax ci yamba mais nag am lu ma jàngat ne waa yeew yi mel mm. dañoo ku leen tere tamit ku leen yow est-ce que bëgguñ ku leen tere mais ku def autorisation kay bëgg manifester wu kay ñoom la leen di tere nag politique mën nañu jouer sax carte boo xam ni li Omar pour bëgg parce que pour mën a def kii mais nag yow it bul topp ci loolu non non alaaji nag ba bañ jógee ci Kër Massar beeg léegi mm. dañ leen a yoonalagul seen benn manifestation moo tax Mm. mais benn man manifestation depuis ñaata weer ñu bañal leen. te président Sall dem na fi Fuuta dem fi fu ne. Ah, moom nee na tournée économique. waaw mais non mais réew mi kay. d' accord mais bu dee ñu d' accord nañ mais. Ah. mais ñii dañoo ñëw taxawal ñax mooy ñi dem fu ko neex dem fu ko neex wal fajiri fii seen seen kii bu mujj bi léegi lu ñu bu ñu leen yoonal bi ne woon wal fajiri mhm. bi ñu bëggoon def fee ñu ni déedéet ah, loolu la ñu wax mhm. mais c'est parce que ñaari ñaari ñaari ñaari opposant bu ñu bëggee def manifestation si benn bërab kay xam nga ni loolu kenn opposition bi dem na benn chantier sax ñoom ñoo ko waral ndaxte fu ñu bëgg fàkk rek na dañuy daje gars yi commencé. man de bu ma doon bu ma doon fa la téye woon portable bëgg ñu sàcc ko dem sàcc wuñ ko. Assane Assane mooy bëgg ñu sàcc ko nee na far kenn jëlu. <laughs> ayca sukka alors temps jeex na. ayca ah, ah, ah. nëppaat dafay am am naa lu ma ci wax wax garaaw. waaw day dem day dem. damay dem fan. manifestation ba manifestation ba. bii bu dee xaar yàlla fii. waaw hmm. ah, déedéet dama man du ma seetaan yow. ah yow ci réew mi xam nga nag li li yëg ci réew mi nag. du ma seetaan man ñu ni fee nga doon eh, eh, eh, ne pour moom dëkk bi baax na nii. <laughs> waaw dëgg la parce que day bañ mu neex. Bakar indi keneen. merci. man moom man moom man ah. injustice la bu Bakar la ko teg comme nan maanaam injustice ci réew mi mosoo ko dund maanaam ñu teg la ci réew mi lu jaadu mosuñu la koo teg man de leen leen ma teg loo xam ne dafa ko naqatlu loolu te mënuma koo kii mënuma koo kii hmm. ko ma kii mais mais wax dëgg yàlla son man seetaan ko hmm. même sama koñ nii bu amee dara dara loo xam ne ngay dem mënuma ko mënuma sa réew non man moom man moom dem insha allah waaw man mi damay dem man di ko est-ce que kii la xaar yàlla wala bu dee akapes akapes da jege yoon rek. daan daan daan ah, sobe yàlla damay dem. <laughs> monsieur Dieng damay dem. waaw <laughs> ah, loolu am damay damay ah, damay. damay dem incha allahu rabbi alaaji bàyyi waxu dëgg la dem nañu nañu nañu nañu nañu autoriser ah, mbir mi yaa waaw damay laaj pour ñu autoriser. mbir mi ah, ah, waaw waaw jërëjëf tëgg tëgg. saa saa ngeen ko am de gis ma ngeen ngeen nëpp am am kon. am na am na am na am na am na am na am je suis désolée. ah c'est pas grave. yaa jeexal temps bi maa ngi jégalu maa ngi jégalu. te nga ñu waroon a ñëw toog jox dig daje su koy. ngañ ne waroon naa toog ci manifestation yi. waroon naa toog ci manifestation. su kaa ngañ moom waroon naa toog. wallaahi Azim waxtu yi ñaata moo des.